ba tey ci seen scandale du jour Assane Diouf def na ay révélation moom it jëmale ko ci li nga xamante ne mooy nguur gu beesti di xam le ni que ñu bëri dañu daal di am euh, naqar ñu deglu ji ko. sàll jógee ba léegi wallaahi billaahi man ci mbedd mi laa nekk bis bu nekk ñu ngi jàmbat. marchand ambulant yaa ngi jooy jaaykatu gerte yaa ngi jooy transporteur yaa ngi jooy ouvrier yaa ngi jooy mécanicien mason menuisier ñépp a ngi jooy te loolu bokk bokkuloon ci liggéey ngir yàlla espoir moom la sénégalais yi am ci yéen ngir yàlla espoir man moom laa yaakaar ci yéen ngir yàlla xeex bii Assane Diouf da cee nekkoon Paul nekk ci Ousmane nekk ci Basirou nekk ci Jean nekk ci Barthélemy Diaz nekk ci Khalifa Ababacar Sall nekk ci keneen ak keneen ak keneen ak keneen nekk ci te bokkuñu tarixa mais ñoo bokk Sénégal ñoo bokk drapeau bëre du drapeau national bu Sénégal s'il te plaît li ma leen waxoon rek lépp lu ñu mayul woon Macky Sall barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam duñ leen ko may te réew mi kenn moomu ko ku dul senegal Sénégal rek moo moom Sénégal keneen moomul Sénégal ak loo fi mënti am ak noo mënti toll ak koo mën a doon wallaahi billaahi moomu loo senegaal ku dul senegaal ay olof nag laa leen wax on est dans un pays laïque Baay Faal yi yàlla nañu yàlla defal jàmm góorgóorlu leen ngeen teg dig bi ci loxoy sénégalais yi balaa ngeen a attaqué kenn xiif mar liggéey pas-pas bu ko laal man mi sa maa ngi jooy da ngeen mënut gis sama rongoñ rek waaye maa ngi jooy fu mu nekk nii su may waaj a ñëw ci plateau bi ma fomp fompal def jël mu musóor bi càpp càppal càpp càppal gisoo leen ni ma gisoo fan yi ni ma ni ma moddee fan yi damaa ñaaw de xam nga gis gis nga boo amul xaalis nag doo sawar dëkk maanaam c'est juste pour vous dire que dëkk bi fépp a métti ñëpp a ngi jooy te wax na dëgg nag ndax seen naa ko coté foire. momi asan sienna aku, naa ko waaw loolu moom séen mu taxaw ak ñaari nit nyari ñaari kilifa ñaari ponkal gis nako mu taxaw ak ñom di wax ki ma bokkal auto bi nane wa ki du asan mu ne ankay mom la pourtant fi lay fréquenter kon asan bo tëju won sa firgo sax nga tëju sa nek métit bi sénégalais yi di dundu dang kay yek parce que le pays va mal. amul benn secteur booy woote kenn ku fay liggéey mu ne la doon ñun moom alhamdulillah bi nguur gi ñëwee ba léegi nice amul boo woote ci côté presse bi la majorité ñu ngi jooy Birame Ndour barki démb la toog TFM wax seen TV dañoo waxul lekk waxe problème yaa ngi fa set TV dégg ngeen donte amuñu problème salaire waaye gis nga seen patron lu muy dëj maanaam boo demee ci ambulants yi ñee ngi dem ci géej gi ñee ngi xaru nga dem ci ñi nga xam ne ñoom ñooy chauffeur si menacé nañ leen ne dañuy nangu seeni permis nga dem port gone yi dàq nañ leen renouvelé wuñ lonage contrat yi renouvelé wuñ ko amul benn secteur Assane Diouf amul benn secteur ci Sénégal bi ngay laaj nga laal ko rek ñu ne la yii ñun moom nguur gi bu mu toogee ba léegi noonu alhamdulilah enseignants yi nag déggaguñ leen ndax école tijjeekul université barki dem moo njaay concert casserole lañ doon tëgg fii lañu fekk marchand yi nee nañ ginnaaw suba la neuf dañuy def marche courant bi jooy nañ ba jooyatuñu suukar détail jaayatuñ ko dawlin détail ñu bëri jaayatuñ ko manam côté bo laal ci nguur pour l'instant amul Ben, amul Assane bo yoroon say millions sax tu sens que ce pays va mal xawma ne problème je sais pas mais le pays va mal et va très mal secteur yëpp amul Ben, secteur boy water laaj ñu ne la ah ñun mom wi ñun Nous buñu sañoo fi no mbir amul côté bool laal côté boo laal yàlla baax na ñun ñoo de ñoo leen tànn dix-neuf heures ñu jubilé